asalaamaaleykum euh, mbokku internetu Thiès Info ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp euh, bu ngeen gisee nag fi ñu taxaw nii sama ginnaaw décor bi suñu ginnaaw ñu ngi marché Moussante alors euh, marché Moussante nag lu doy waar am fi askan bi waa marché yi di ko kaas loolu naan vraiment inondation bi am fii suuf su bëre si ba dem sax ba ne mairie bi defaruñ fi dara lu baax tey nag ñu dajeek suñu papa ji nga xam ne dañ ko ñëw fekk muy gas fii papa bëggoon nañu xam autorisation bi kan moo la jox autorisation bi ngeen gas ko. suuf si nekk suñu ginnaaw. maire S présenté wul d' abord man maa ngi tudd Abou Ndiaye ñu ma gën maa xam ci Abou Idriss Seck. dëkk ci Mbambara fii laa juddoo. Pape Bassirou Diop le maire idéal moo dindi lii démb. moo ko dindi démb oto bi ko doon yër. Mm-hmm. dafa oto suuf dafa tooy oto mënu koy chargé. Mm-hmm. ñu jal ko fii ba suba man leen jal leen ko nii. Mm-hmm. kale pour ndox ndox ma yëgaat tu la yëg suuf si yëgaat tali bi. ñu jal ko nii. ñoo ko jal nii pour suba kanam. oto bi da koy jël si. da waaw. mais est-ce que yoon la. ngeen bàyyi ba monsieur le maire sax. bàyyi ba tey euh, taw bi ñëw ak doole. ñu door a xalaat dindi lii parce que déjà créé woon na benn euh, embouteillage ba ba démb macha allah fii moom bu romb fi sax problème la est-ce que warul woon mën a anticiper loolu. waaw cest à boo gisee loolu. lii du benn yoon ko mën dindi. Ah. parce que saa yi boo ko dindee su tawaatee mu fees del ndax fii daa xóot rajo la boo xam dafa xuut ruq bee gën léegi nag saa yi boo dindee suuf si su tawaatee di ñëwaat. boo dindee suuf si su tawaatee day ñëwaat oh. est-ce que mënuñu am beneen solution nag ba defar ko ba nga xamante ne bu tawee dootul ñëwaat nag. Ah, cest à kooku loolu liggéey état moo ko mën. bu ko defee bu ko def état bu tegoon loxoom ñu canaliser ko fii suuf si dootu fi duggati. Pape Basir Diop nag mm-hmm. gàcce ngaalaama ndax at bu jot mooy dindi suuf si. at bu jot moo koy dindi tey ci suba laa dem bërki démb laa dem mairie mm-hmm. wax ko ko ñu ko néew leen. mooy la Pape Basir Diop mooy la maire idéal mooy maire bi tabax marché yi mooy maire bi am yëpp yërmande ci Sénégal nag la. mais le maire idéal d' accord xam nga euh, le maire idéal ok ah. mais euh, gis nañu waa marché li ñuy kaas dafa bari marché yi bëri na problème bu taw bi jotee kenn du am fooy jaar alors est ce le maire idéal au final. non c' est à moom ci zone am mhm. macha allah ah, waaw zone am bi mu bi commune am tabarkalla parce que lii rek moo am problème ci commune lu amul leneen nag parce que tey démb démb démb ci heure bi maa ngi dugg sampaate man duma agent maire yi mais maire yi ñoo ma fi teg waaw man nag man damay damaa supporté Idriss Seck moo tamay wër tout quartier yëpp laay wër fu ma fekk nit kuy dimbali liggéey ma dimbali la tey la sama kër a ngi nii d'accord man fii laa dëkk zone bi léegi léegi maire bi moo la fi teg pour nga dindi lii yow tegal nga sa bët gis nga lii dindi ngeen suuf si mais est-ce que xalaatoon ni am na beneen euh, euh, comment dirais-je euh, nuñ ko mën a expliquer beneen solution ay waay mi ngi taw de beneen solution ñu donc beneen solution pour lii dañ aussi parce que lii doy na waar incha allahu rabbi incha allahu rabbi mm. te kattan yàlla dina deñ waaw bu neexee yàlla mm. ndax ñu ngi ci te problème bu mu am mm. dina fexe fexe bu lii dañ fi incha allah. sëñ bi maa loolu du waxu supporter sa maire du question supporter. parce que maire aussi foog ñu wax leen. fayu ñu embauché wuñ ma mais sama tray bamel lay wax lii dina def mosa dañ incha allahu rabbi ayca mi ngi noonu dañu yeggal yi ci kanam parce que mi ngi mel ni mi ngi taw donc dañuy yeggal yi ci kanam tuuti rek ñu bàyyi euh, taw bi sewet tuuti ñu daal di yeggali ñu ngi lay sant di la gërëm ah, donc ñu continuer micro bi sëñ bi baaxee ñu tur beeg sant bi Mame Mor Ndiaye la ñu ngi lay ziar bu baax à travers Thiès Info lan nga mën a wax ci euh, problème bi am fii tey ci Moussanté waaw bon man fi laay liggéeyee chaque sama place fii la nekkoon mais maire ngi def lu mu mën ci ndox mi moo ngi ciy def suuf si lu mu mën chaque année fi la ñuy fekk chaque année maire dina indi ndaraan tonni ko deux fois mais li du problème parce que liggéey bi ndox suuf si day jógee ci mbedd mi lay dégager di jóge di ñëw ñu ko njëkkoon a jox ñoo ko liggéeyul normal moo tax mais maire moo ngi def lu mu mën. waaw lii moom doy waar rek la def. lii moom vraiment doy na waar. parce que gis nga ñu ñun bu tawee daanaka fii dootuñu mën a def dara. doy na waar gis nga maire bi ñëw tonni affaire yi ah. jël ko xëpp ko fii dem yoonam. loolu baaxul. léegi sax euh, problème parce que xëpp na ko fii ndox mi bu ñëwaatee ak doole est-ce que du gën a wàcc. baare waay bu tawaatee ndox mi day wàcc. bu tawaatee suuf si wàcc lépp fii daal di ñëwaat. lan nga jàpp ni mooy solution bi. defar ko mais lii dañ ko war a defar lii dañ cee war a jóg parce que fii route nationale la. ñëpp fii jaar. Mhm. nit ñi ngi fii liggéey di fay ay patane def lépp ah. dañ ko war a defar jug ci. loolu mooy solution bi loolu rek mooy solution bi waaw. maa ngi dégg sa biir wax ngeen ne da ngeen di fay ay patente et tout ça kon yoon la kon fii tam warul woon mën a. warul mel nii waay waay dañ ko war defar. dañ ko war a defar dañ ko war a defar parce que lii c'est pas normal. waaw du yoon waaw. tey ngeen demee tey ba mairie bi à chaque année lu mel nii di fi am mënu ko defar est-ce que population bi aussi waruñu mën a mànkoo ñoom it def seen seen liggéey. waaw mais lii lii liggéeyu maire la. d'accord lii affaire maire la waa maire bi ñoo war a defar lii. mais pas population bi. parce que maanaam genre boo déggee ma ne population bi yéen ñi nekk fii peut-être ko wala wut ay xeer teg si ba nga xamante ni yéen. yéen ñi fi nekk balaa sax moom muy ñëw yéen ngeen jot def benn première pas. non mais loolu mënuñu ko parce que tali la tali mënuñu ko sëkk. tali mënuñu ko sëkk bu doon mbedd la wala benn affaire mais tali kenn mënu ko sëkk. li liggéeyu maire la maire moo war a sàkk pexe fii defar ko. ñun fi la ñuy fekk chaque année maire dina ñëw ñaar yoon tonni ko dina ko tonni bu ko tonnee bu toggaatee bu tawaatee suuf si même sos lay def parce que fi muy jugee mooy tax parce que fekk du ñu bëgg a régler problème mu fii du problème mu tali bi tali bii lañuy defar ba pare roq bii suuf si di jugee moom la ñuy defar ba pare dafa doo ko defar fee doo ko euh, fii doo ko normal mais maire def maire maire li mu mën moo koy def ki ñu joxoon xaalis bi pour mu liggéey fii moo ko liggéeyul normal moo tax moo mooy def li moo waral lii demee nii mu demee mais bu ñu jël lépp. tonton ñu ngi lay nuyu di la ziar à travers Thiès Info. d' accord maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant bu baax. Euh, yow fi nga dëkk. waaw fi laa dëkk waaw. lan mooy sa xalaat ci li nga xamante ni chaque année day am ci marché bi muy inondation bi. bon li sama xalaat moom mooy que ni vraiment lii euh, ngeen baal ma ci terme quoi mais on en a marre ci situation bi c' est pire que le Covid parce que aussi vingt et unième siècle waruñu élire ay maire yoo xam ni à l' approche des ñu ñëw def di xaw a liggéey liggéeylu. or que lii ñun bi ñu nekkee xale ba bi ñu nekk pas le problème demeure il faut que ñu apporter ci des solutions durables te lii vraiment gis nga temps yi dëkk bi ñëpp a wànnet te lii bokk na ci li nga xam ne day yokk non seulement aussi par exemple c' la route la plus fréquentée parce que mënoo jaar par exemple dem ville sans pour autant nga jaar tali muusante bi te tali muusante bi dafa nekk un problème boo xam ne gis nga lii lii seen euh, euh, démb fi kaas à chaque fois heure bu fi oto jaaree dafiy dafiy dafiy càng suñu maam yeeg suñu jabar yi xool heure bu ñu dem marché mais dafay metti trop trop trop trop te vraiment war nañ ñu dimbali quoi war nañ ñu dimbali apporter ci une solution durable sonn nañu. dëgg la kon da jàpp ni yow maire bi fi nekk daal moom nañ ko fi war a jëlee wala nuñ ko fi war a andi keneen wala waaye non mais fii est-ce que am na maire c'est c'est la question ñu je me xam ne maanaam affaire affaire maire du élection président de la république. Mhm. ñun waa Mbambara ñoo war a jël suñu responsabilité améliorer notre cadre de vie. Mhm. waratuñu toll vingt et unième siècle di fal ay maire yoo xam ni bu ñu kiiyee ñu def affaire taf yëngal dañ a jógee. Mhm. du ay du question de tafiyee mais les problèmes bi est-ce que comprendre il faut ñu élire maire boo xam ni day nekk près de la population di apporter des solutions dira xam lu ñuy dund mais koo xam ne par exemple bërkaat démb lañ fi ñëw gaare seen 4x4 mais ñun dañoo sonn dañoo sonn fii je me pose la question à savoir est que am na maire donc euh, mu ngi noonu est-ce que am na maire xam naa ne nag moom bu la déggee. ah dina la dina la mën a tontu bëgg mu dégg bu baax a baax xool fii maire nañu trop trop trop. les gens en ont assez moom xam na ni sax vraiment xoolal la mu fi doon def temps attend euh, ba muy nekk maire tey bu fi ñëwaatee beneen comportement la population bi yore parce que la mu fi woon yëpp defu fi dara defu fi dara il faut qu'on soit franc avec lui lii du grand bi lu mu doon wax man je ne suis pas d'accord par rapport à ça est-ce que ku nekk dañ laa far pour nga war a def sa liggéey ñun population bi dañu fay ay taxes maire 800 millions la am comme nit ñi dofatuñu xam nañ ko bu ñu bëggoon lii bu faj nañ ko bu yàgg loolu mooy problème bi donc ñu ngi lay sant di la gërëm. maa ngi leen di sant bu jël lépp teg ko ci kaw maire quoi man fi la may fekk chaque année bu ne. mais dina ñëw deux fois tonni suuf si. mais comme yéen yéen a fi dëkk population bi yéen a fi dëkk comme li nga expliqué ne am na solo que suuf bi fële lay jóge est ngeen expliqué ko moom it mu comprendre ba nga xamante ne bu ñëwee dina régler problème bi de ce côté bu ko defee suuf si dootul ñëwati. waaw mais c'est normal waaw effectivement. parce que ñun a wax ak moom ci loolu. bu ñëwaatee beneen yoon nañ ko ko wax bu ñëwaatee beneen yoon nañ ko expliqué problème bi fan la nekk moom mu jéem ko régler mais moom moo ngi def li mu mën xëy na problème bi la dajagul mais moo ngi def lu mu mën ndax chaque année dina ñëw bu ñëwee dina ko tourner deux fois. chaque année mooy ñaata année par exemple chaque weer quoi chaque heure bu nawet xam nga nawet rek nawet heure bu nawet ñëwee. Mhm. heure bu nawet ñëwee. xam nga suuf si moom nawet la fi nekk. bu dul nawet du fi nekk. heure bu tawee bu suuf si ñëwee maire dina ñëw deux fois tonni ko. loolu fi la ñu fekk nañu waxante dëgg quoi kenn ku nekk ak sa akulaay taala ngay waxal quoi ñun fi la ñu fekk. maire ngi def li mu mën mais problème bi tamit xam nga. moom moo ngi jéem quoi nañ waxante dëgg parce que nit bu defee lu baax tamit des na malgré mu ngi jéem li mu mën mhm. mais tamit des na quoi waaw des na parce que tant que réglé wuñ problème ruq bii karoo ko wala ñu def ko dara fii la suuf ci dégagé problème bu du réglé wu mais nag mu ngi def li mu mën mu ngi tonni chaque année mu ngi ñëw di tonni mais mais comment se fait-il moom mi ngi def li mu mën chaque année chaque année muy ñëw di def la même chose est-ce que jotul woon aussi euh, mu taxaw nag xool problème bi fan la nekk ba nga xamante ni dina ko defar ba nga xamante ni chaque année dootul jarati sax muy ñëw chaque année chaque année aussi parce que ñëw chaque année laaj na tamit nga xool problème bi fu mu situé waaw loolu nga wax dëgg la. loolu moom nga wax dëgg la mooy des gi rek. mooy li wax noonu mooy moom war na ñëw xool problème bi fa la ne mu réglé ko quoi. parce que problème moom tant que ruq bii problème bi du réglé wu quoi. parce que suuf si fi lay jóge te fii dafa gannu si. léegi ndox mi bu dégagé yow bu ñëwee ba fii day tàkk waaw loolu mooy problème bi quoi mais nag ñoo ngi koy ñaanal moom jàmbaar la quoi ñoo ngi koy ñaanal tamit non faruma ci maire sax dama fee ne wax dëgg rek dëgg laa wax tax man dëgg moo ma fi nekkal quoi ok merci ñu ngi lay sant di la gërëm xam naa sama man après dinañu jël euh, ruq boobu pour wan ñu euh, sëñ bi euh, li muy wax naan suuf si fa lay jóge papa ñëwal nga sànni sa xalaat <laughs> yow <laughs> voilà yu yi ci mel yi ni mel da ciy baax ndax population bi ku ci nekk am nga sa droit wax li nga xamante ni moom moom moom mooy sa xalaat ci euh, jafe-jafe yi pour nag bu ñu paree xool la ci baax ñu jël ko teg ko ci table bi daal di ko euh, régler problème bi pap baaxee ñu tur beeg sant bi. Vieux Moussa Doucouré chauffeur garage Xombal Thiès. voilà lii da ciy am solo parce que chauffeur yi ñooy jànkontreer lu nekk donc yow dañ lay bàyyi nga wax ñu li ngeen di jànkonteel surtout nag at kaayu mel nii. bon fii moom li ñu fiy jànkonteel yàgg na quoi. Mm-hmm. bon ëpp na 15 ans mën naa ne vingt ans sax chaque nawet nii lay demee bu tawee suuf si ñëw fii baare tali bi oto yi duñu mën a jaar nit ñi duñu mën a jaar oto yi boo fi jaaree da ngay sa oto day yàqu plus de 10 camions nawetu ren bii rek plus de 10 camions paan nañ fii dañu mujj wooy seen moroomu camion fay ko xaalis mu ñëw remarqué leen lonk leen te et puis da nga siy jëlee paan tali bi baaxul ba pare suuf si ñëw dooleeku ci bon cest à man waxuma ay maire deful wala def naak yooyu xam nga bu defee xam na moom bu deful xam na mhm. mais xoolal suuf si biñ ko année léegi xoolal voie bi dañ ko tëj te pourtant ba nawet bi commencé ba léegi mhm. saa yu tawee deux fois trois fois suuf si day ñëw mais lan moo tax duñ ñëw dégager suuf si oto yi mën a jàll normal bu tawaatee trois fois wala quatre fois nga ñëwaat def noonu mhm. mais dañuy xool ci ne dañoo bàyyi ba jaarootul nañ waxante dëgg rek fii mujj ne oto mënatu fay jaar benn oto day ñëw paan fii embouteillage am fii ba place de France embouteillage xam nga li ma la waaw fii moom bu ñu waxantee dëgg ah dañu liggéey seen bopp rek lañ fi nekkal liggéey ñun population beeg ñun chauffeurs yeeg commerçant yi moom souffrir rek lañu nekkee dañu waxante dëgg rek parce que boutique yi yëpp dañuy fay ay tax ñoom bu fay taxe jotee bu ñu ñëwee taxaw xoolal du ñu maslaa dañuy ñëw ñëpp fay par la force boo fay ñu tëj sa place chauffeur moom du ma la expliqué du ma la wax xam nga nu mu demee waaw affaire bi daal loolu la fii moom wax dëgg yàlla defaruñu ko. bu nawetee moom dañuy sonn trop ñun ñi nga xam ne fii la ñuy liggéey day mujj dootuñu mën a liggéey parce que oto yi day ñëw embouteillage am fii xam nga oto yi digg tali bi li koy waral mooy suuf si te bu tawee deux fois suuf si ñëw mais lan moo tax duñ ñëw dégager ko xam ma la oto yi mën a jàll bu defaatee noonu trois fois ñu ñëw dindi ko ah mais dañuy bàyyi ba nga xamante ni jaarootul ñëpp di wax ñëpp di wax ñëpp di wax ñu soog a ñëw def nii xoolal ni ñu def nii xoolal jëlal lii fii yoon la ay camion dañu war a jaar fii pour dugg si biir marché bi xam nga li ma la pour wàcce ay bagage mais mënatuñ ko mënu mënuñu nan lañ koy defee suuf si ñu ngi ko jal fii mais bu fekkoon ne duñ ko dindi mu nekk ñaari camion wala kii be camion bu yóbbu ko bu tawaatee ñu def noonu du mel nii mais xoolal li lii moom sa bët moo la koy may ah, sama bët moo ma may macha allah yaakaar naa ni message bi jàll na moom chauffeur la donc euh, message bi jàll na à travers Thiès <laughs> dëgg la dëgg la macha allah donc mu ngi noonu mbokk internet yi dañuy bàyyi yéen ñi nga xam ne yéen ñu seetaan ngeen wax seen xalaat ci reportage bi euh, ci inondation bi nga xamante ni ak suuf suñu jal fii fii ci euh, marché Moussante donc au microsist siste ci caméra bi nag Jean maa ngi sant bu baax di ko gërëm sama caméraman bu baax bu ñaawul boobu donc di leen wax ni rek euh, nañuy prévenir di bàyyi xel population bi rawatina nag nawet bi ñu nekk parce que vraiment. soxla nañu nawet loolu mais am na si ñoo xamante ni su nawet bi yegsee dootuñu nelaw ba yandoor dootuñu lekk ba suur ndax kër yu inondé yoon yu yàqu jaar-jaar bi day jafe loolu loolu loolu donc li lañ leen andiloon tey euh, fii ci marché Moussante bu ñu paree fii nag dañuy demaat xool feneen fi nga xamante ni am na inondation merci beaucoup les internautes et at très bientôt merci